gi eggagul te bëgguma mu yomb soo bëggee nga tudd ko non déglu ma sama émission ma musul yomb te du ma bëgg mu yomb dama bëgg lépp loo wax tiyaay vérité direct par tout droit ne lii laay def nga wax ma tontu la ci question rek nga daw dugg ca tentee ba ah tentee ba coow ca lool ndax fa nga taxaw di jat fanaan la fekk dóor la ku waa xam nga yow wax nga wax yëpp. waxuma dara de. non wa lay laaj rek. waxuma dara non dama lay laaj xam nga wax wax nga yëpp da nga ne yow fa nga taxaw di jat fanaan la fekk dóor la ku mais danoon ne arbitre sifflé na boobu. non arbitre sifflé dafa juum. arbitre c'est le maître du terrain mais daa ñu nangul ko ne ko juum nga. Euh, barki seexu cana ba bi may daan ama balde bi may bëreeg moom mu dóor ma combat ji yàqu laa gën a pare. barki Seexu Canaba combat bi laa gën a pare ci musique combat bi laa gën a pare ci physiquement moralement te bu ñu jàppante woon moo xam ni billaahi laa gën a pare mais loolu su ma sañoon du nekk actualité xam nga tax na nekk actualité. non mais doomu waxtaan xam nga tax nekk actualité bi. xam nga tax na nekk man dama fee wooyi. xam ni kii kat mënuma ci moom dara. mottaloo ma waxtaan mottaloo ma ko waxtaan. te bi mu daane bu doon day dem bàyyi ma fi nga ne waaw mais bim mu defee loolu ba pare su ma demul bàyyi ak moom demul bàyyi ma fi. léegi la moo tax nga fekk Zoss nag ci biir dóor ko mu daanu. Zoss bi ma koy dóor mu daanu Zoss mënu ma ko yanu tàggale kook moom mënu ma ko daan tàggale kook moom. zos mu dóor ko mu daanu rek moo may dimbale ñu ni kii kat dafa juumoon. ndax moo gën a wóor mu non dañ naan sax dafa juumoon. mais ñëpp après dem nañ ba xam ne man vraiment li may wax euh, daa am fa ma ko teg. daa ma ko teg waaw li may wax daa am ko teg moo tax loolu yàlla suturaal na ma ba nii nii nii nii nii nii xam nañu maag Zoss laa ma ñu boole woon rek. Euh, classe ñu boo boole mais xam bokkuñu rek récréation ñu boole mais bokkuñu classe. nga génn daal di am tolof tolof ca booy ñang daw jël Siteu. waaw bi may bëreeg boo ñaaw passage di ko nuyu ma respecté au passage. booy ñaaw de mbër bu ma respecté. Mm-hmm. mbër boo xam ne vraiment ñeme naa ko di moom parce que day jël suma qualité yi daal di ko génne jox ma cër bi loolu te bëri nañ ba pare. Mm-hmm. kon su ma wax ci moom ñi ma boo ñaaw bi may bëreeg moom benn yoon laa contact sama taalibe Pape du ma bàyyi ma fen booy yi duñ ma bàyyi ma fen benn yoon laa contact bi ma génne di contact dama wàcc deret laa wàcc bu xonk cur gars yi ne li ma leen suppu kànja bi ma lekk la ëram sax du ma lekk suppu kànja ñu ne ma man naa wax ak man na ma dañuy renvoyer combat bi boobu renvoyer nañ ko trois fois ma xam ne lu na lu baax rek na lu baax bi may doog a ñëw ñaari yi yàqu yëpp dama jekkoon mais biñ demee ba xam ne man jekkatuma man xam naa ne jekkuma mais nas comme que suma waayal te combat bi li ñu ci def bari na te force ko nañ dem rek luñ luñ yàlla may ñu jël mais boo seetloo ma toogee ma doon takk dañ ma jug mu ñuy may loxo war a bëre <laughs> yaa quelque boo ñaaw bu teeloon xam ne man dara newul ci man damay dóor ma daanu mais respecté bi ma respecté mu yóbbu ma ba vingt neuf minutes ma laaj Malick ma ne ko Malick au passage arbitre nit ku baax la ma ne ko Malick ñaata temps moo ñu mu ne ma vingt neuf ma ne ko bu yemee fii mu moom benn la am yow ñaar te boobu jóge naa ci sos bi ñu demee sama baaraam bi may bañ ñu yàqaat sama der ñu ni guy gi day niin ak dem baaraam daw sonko boo gisee bi may daw sonko moom sax doon na reculer dafa xàcc ko ñëw suuf téye ma bi ma daana maa ngi ko noo daan naa yëkkati daan naa yëkkati ma du ma bàyyi ma fen bu déggee xam lu ma wax mu pare nag sa félicité ma papa félicité ma ma dem jaa yoonu bopp ngëm yàlla gi ma amoon ba ñëw ak moom bëreeg moom loolu la amaatee ngëm yàlla ba ñaan yàlla may ma kontu site xale boo xam day dem ñëpp xam ne mm-hmm. mu jox ma cër ma daan ko ci bu wér mm-hmm. coow loolu sax moo ma ëppal combat euh, coow la ne mais nit da ngay gëm lii rek yalla may la nga bañ lii yàlla xañ la lee ci force mais li nu jaaxal boobu ba guy gi déggatun la fenn déggatun la ci dara ñu bari na ma la gisatun sa combat ndax nee nañu sa dugg si dara na leen lu nekk ak sa jaagar jaagar yi ci làmb guy gi. waaw côté boobu bala ma avancé sax maa ngi nuyu sama benn booy mu njaay bu guy gi moo Modou bu guy gi suma xarit la suma doom la di nuy papaam di nuyu. waaw suma xarit la du émission. non man maa ngi ci fi mu toll nii euh, biñ mujjee compter 206 guy gi cent 207 guy gi. 207 guy gi père li ma la wax nii du ma ci waree baat. est-ce que yaa ngi koy dugal commentaire ba yaa ngi koy dugal. non bi maanaam dama ni la man liñ liñ compté. liñ compté 207 guy gi lañ compté. su ma juumul 207 guy bi ma demee Gambie au passage di la nuyu ñoom ay sota bu guy gi waa Gambie gi yëpp maa ngi lay nuyu vraiment di bu baax a baax a baax a mm. ko bi ma def émission caat fii ñu capturé ci yu bëri def seen statut mm. ma xam ne kon su ma leen nuyoo lii dina jàll di nuyu waa Gambie gi yëpp mm. ñoom Cheikh si ñoom grand nuyu grand malal maa ngi lay ñoom ñëpp surtout Cheikh si suma xarit la suma mag la xaritu dere la suma xarit suma genn wàll di nuyu papa doomu dere xaritu dere xam nga ak Ibnu ñoom ñëpp ak Aliou parce que ay xaritu sa xaritu xarit sa xarit la ñi ma wax ñëpp seen xarit la man ma demee Gambie bi bi bi ma xëy limi ma am ko Gambie ñëwaat fi ñu wax ko nga dajale Fuuta bi ma demee bokki di nuyu waa bokki gépp mooy bokki Fuuta la ak demet téré ji njum ayra laaw fa laa jógee barki démb di nuyu waa Fuuta gi yëpp surtout waa bokki saara ko bi bi bi ñu ma waxee man ñu dajale ko sama intellectuel bi moo di ko di ko partagé dama ne noonu lii munu nekk moo tax ma ne man j'ai pas droit erreur amatuma droit def erreur parce que lu toll nii ci ay nit buñ la ko contenté yow lañ tu de suñu ñun am na huit guy gi suñu écrit rek des fois dama naa leen euh, da ngeen examen seen biir ngeen bëre bëre bëre ba bëre ba ngeen bëree ba ba ba kenn daan kenn kenn ki nekk guy gi waaw suñu écrit fii sama kër fi ma yeew am na ñaari guy gi ah, sama kër rek ak yeneen non instant yi contactu ma. waaw Eumeu Sène Junior moo fi nekk. Pambay Pambay mel ni waaw Eumeu Sène xam nga su ak suñu rakk yi xam ni tey maa ngi ci ñoom tey ma jiite leen xam ne yàlla man la fi teg tey mm-hmm. ma ñu topp sama ginnaaw topp bu rafet nag mm-hmm. xam nga tey waxuñu ko xam ne xale bu ndaw rek nekk ci écurie amul lu mu bëgg quoi man dama nekk ci écurie ba pare am lu bëgg mm-hmm. toppoon ci ay nit xam nga toppoon ci ay nit mais nag wax dëgg yàlla tey ñoo ñoo toppaat ci man moo tax ku toppul kenn du la topp man nag dama ci sant yàlla bu baax nag parce que boo ci nekkee loolay demee ñii dañuy ñëw ñii dem mm-hmm. man nag sant naa ba ma topp ci ay nit ñi dem man nekk ñoom ñee ko rafet ñi tamit man damay dem ñeneen ñëw te kon dama koy rafetal ñëw ñu ngi sama ginnaaw bu baax ku ci am combat maa ci jàpp ni ma ci war a ku ci war a dem fenn boo ma wooyee ma xalaata la comme Pambaay bi mu dem barki dem Italie daf ma woo ma ko lii ak lii te gëm naa ne koy defee keneen keneen noonu man daal li ma mënul conserver mooy nga nekk ci écrit loolu yëpp jóge na ñoo xam nag ñoo xam ni dañ leen di jàppee comme maire buñ la wan bi laa bëgg a teg ci yoon ñu topp sama ginnaaw li am ëllëg ñu am lu ko ëpp mais fi mu nekk ba kan mooy président école bi.